ayca ndeysaan supporter u Doudou Sané yaa ngi noonu ah gàllankoor ak Mama jen, <laughs> gaya silentakar, si ino Dakar bis baa ngi noonu ñuy wàcc si oto yi kaar yi gaa yaa ngi nii Diofior Fimela Ndangaan kenn desul gaa yaa ngi nii ndeysaan yëpp si oto yi waaw otak bii ngeen di gis ndeysaan moom la Doudou Sané jëlee woon daaw fële ca gaage Serif kat kat baa ngi noonu gaa yaa ngi nii toog ñii am nañ ay tiset de cent pour cent ayca waa écritage yi nga gaa yaa ngi noonu toog ñëw dooleel seen seen champion bi ñoom ñoo bokk écrit li nice na da ciy am solo waaw ñëw woon ko ne ñu ngi sa ginnaaw mais ana Eumeu Sène wala ñu dajeeg moom stade <laughs> ah ayca maire yaa ngi noonu ci togg yi ceeb yi daa mel ni pare ndeysaan gaa dañuy añ rek dugg stade Iba Mar Diop wala stade Iba Mar yëngal ko ay ceebu ginaar laa gis de a ah, jàmme bonam nice ay ca meer yaay noonu di yekki ceeb bi yaay buñ añee ba pare yàlla la la fii ñëppay añ ca suweer bala ndeysaan beni kaar ñaari kaar ñetti kar ak bis ba ak beneen mini kar na si rokowi ñu nekk si bi Lamine waaw ah sama doom baa noonu safaru Duudu Saane Moussa Ndong kenn du moom Ramoula classe ataa bi fu mu troisième aca ngi di jël seeni 17 100 pour cent mais euh, sol leen tiset yi nag sol leen tiset yi tiset yi joxul leen ko pour ngeen téye ko de sol leen tiset yi. waaw waaw. nañu ra jël ay tiset. Mouhamed Labou bu Doudou Sané gars yi dañoo escorté buntu gàlle de kenn mënul dugg ah gars yi.